Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. kon nag mbokku téléspectateurs yu Equivox TV ñoo ngi fi tey <laughs> Guédiawaye ñëw kër <laughs> le lion de Guédiawaye muy Balla Gaye boo gisee <laughs> décor bi xam ne mu ngi waajal yoon muy yoonu Touba incha allah. ñu ñaan yàlla àgg ci ak jàmm te lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla ñu ñëw tey euh, fas yéene waxtaan boo xoolee aussi ni mu ni mu solo nga xam ne solo bi xaw na xaw na ànd ak euh, le contexte waaye ñu ngi lay euh, nuyu champion di gis na li nga daan def daaw ak barke daaw ak ak daaw jéeg moom ngay defaat lii ngay def muy muy safar lan la lay coûter en terme de dépense wàllu alal naka la lay coûter waaw di sant yàlla rek di jël si yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant sama ñaar waajur sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul sant suma Serigne Serigne Bass Baara yal na yàlla yokki leeram te taaf ñu ci barkeem moom mi ma teg euh, ci yoonu Serigne Touba tett ma ci euh, maa ngi koy sant baax gërëm fii daal jàppal ne daal mbiru Serigne Touba fi ne euh, benn ndongo bu xeebu moo fi ñëw di jéem di santale Serigne Touba suñu borom. noonu laa ko mën a jàppee waaw. ndax mën nga ñaata ngay dépensé par jour xam nga fii non fii Serigne Touba mooy mooy mooy dépassé lépp. sëñ sëñ bee dépassé lépp. boo nee sëñ bi kon day mel ni du lépp jógewul si poosu Balla am na peut ay ndongo wala ay yeneen taalibe sëñ Touba yi koy jàppale xanaa wala. non du question ay ñeneen ak ma sàmm ma demba dama la tënkal wax ji rek ne la que ni bëgguma la sax wax bëgg ñuy du affaire alal ak ay nangam ak sangam. Mm-hmm. day doon leneen boo koy wax moo tax ma xaymaal la ko tënkal la ko nela sëriñ Serigne joxe lépp mooy def lépp ndax lii liñ ci def mooy am ci Serigne Touba lañ ci bëgg am ci Serigne Touba nag mooy ñu santale ko suñu borom safar gi ñu nekk nit ñu xeebu nekk ay jaamu yàlla ay doomu aadama nekk taalibe Serigne Touba di ko def moo tax lii daal bu daf ñoo war rek ñu koy def. sa safaru ren tombeek euh, feebar bi mbas bi est-ce que amul différence ak sa sa safar yi weesu. no amul différence. déedéet amul différence. kii mesure de santé ñu ngi sant fii ñëpp ngi ñëw ci jàmm. Mhm. yaa ngi gis ñii ñi xewlu lañ ba pare ñuy dem ñu di xaaral xewlu bi. Mhm. ñu di déglu sikar yi. donc vraiment lépp lu ñu fi doon def suñu borom daf ñu ko si mhm. Serigne Touba jàppale ñu lépp yokk. li woon daaw lu ren a ko ëpp. kon loolu ñu ngi ci sant yàlla daa gën a yokk ndax mbiru Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am waaw loolu tax. Balla bu ñu vingt une victoire ñaar fukki ndam ak benn bu ñu ko waxee la lan ngay xalaat. dara war naa am lu ko ëpp war am lu bu ma seen damay am trente victoire. bu ñu nee aussi ci biir euh, képp ku ñuy wax lépp lu ñuy wax VIP fii Sénégal bala Gaye moo ci ëpp ay ndam loolu tam lan la lay def en tant que mbër. waaw di sant di sant yàlla rek ndax xam nga tey yàlla suñu borom mooy maye doon taal bi Serigne ah ñëpp di ma ñaanal bëgg ma sopp ma du man rek maa fi nekkoon bër waaye loolu liggéey la sérieux la jom la fulla la fayda la xam loo bëgg am personnalité nga am ci ñu lay jàppale am say encadrement yu baax ndax c'est pas évident loolu yombul kon nag lu yombul nag kon xam nga ne borom daj na lu métti ak ñi ko jàppale ndax euh, lu ko dalee ci sama turandoo suma papa suma yaay suma staff sumay encadrement ñu lay taxaw suba ngoon amee combat ñu ci daj ñu ne di la teg condition yu baax mën a récupérer mën a sport kon loolu vraiment ñoom sax laay bu ma leen ma sant yàlla bare yonent bi ak Serigne Touba ñoom laay sant man duma ci dara waaw mën naa ne duma ci dara ndax ñoom ñoo ma doole ñoom ñoo taxaw. waaw loolu bu ñu nee 21 mars 2010 lan lan lay fàttali ku mel ni Balla Gaye 2. 21 mars 2010 <laughs> waaw sant rek amoon combat bu neex. waaw Modou Lo amoon ci combat bu neex. yàlla meñ ci ndam. waaw combat bu ñëpp doon coow. Mm. le 31 juillet 2011 bu ñu ko waxee lan lay fàttali. 2011 <laughs> Tyson. waaw combat bu neex la yàlla defal ma ci ndaw. 22 ah. avril nag 2012. <laughs> waaw boobu mooy daj dëpp bi boobu <laughs> lay roi des arènes. waaw allah boobu boo koy xalaataat combat yooyu ban ci gën parce que bokk na si victoire yi gën am solo sa carrière yooyu bokk na si Modou Lo ba Tyson. ba Baboy ba parce que da nga dóor Modou Lo fekk Baboy indi ko <laughs> léegi ñëw ma ma def la ni ni ma ko def waaw gis nga loolu loolu loolu boo koy seetaan da ngay xam ne làmb neex na waaw léeg nga seen ko gis sa bopp mhm. kontaan am mbégte mhm. nga xam ne yàlla rek mooy mën a may daal mhm. donc voilà dañ ciy sant suñu borom la waaw ba tax ñu ñu bëri naan Balla Gaye de est le meilleur lutteur de de sa génération yaa ngi koy dégg lu bëri ñu koy loolu d'accord nga ci wala d'accord man du man maa koy nommé sama bopp waaye man mi ko nekk man mi ko jiiñ xam naa ne daal loolu am la waaye daal jàpp naa ne aussi tamit dañoo gis li ñu war a wax wax yàlla moo koy def football am na ci boxe am na ci làmb am na ci basket am na ci Jordan tey kan ma koy fàcc ci àdduna génération bu mu mënti doon kenn du moom waaw football noonu football kan mooy Balla Gaye ci football. ci football Messi la wala <laughs> ah. xayma. Ah. waaw ko deelee football ba léegi. Ah, nga tey boo waxee Ronaldo Ronaldinho hmm. wax Messi. Hmm. donc ñooñu ñëpp ay champion la ñu woon ay Figo hmm, ay Van Nistelrooy ñooñu ay champion mais am na ku football loolu mooy àdduna. Messi moo leen football. musique mais man ci man Ronaldinho moo dàq football ci monde bi. Hmm. d'accord nga ci anam bi. waaw àdduna yàlla mooy def ay phénomène hmm. mënut a ñàkk. loolu lu am la sax nit ñi xam nañ loolu. Hmm. sax xam nañ loolu. parce que fe ay ñaari phénomène yu ñëw ci làmb la. ñiy bëgg diw diw bi mu mel ni Barça wala Real wala nu mu demee noonu. bu ñu dajee day neex wala sax même bu ñu wul sax gars yi dañuy bëgg créer buzz wala demee noonu pour ñu naan diw nangam diw nangam. c'est-à-dire am la. boo boo daanee Modou Lo ñaari yoon daan Tyson daan Yékini daan Baboy euh, daan Gris Bordeaux nekk roi des arènes bi gën a jeune car macha allah lan moo defee Balla Gaye ci ci carrière lan la. waaw àggali sama liggéey ci jàmm rek àggali sama liggéey ci jàmm bi gën a rafet euh, loolu moo ma dese ci laamu waaw. liggéey nag dafay jaar ci am combat Gris Bordeaux Balla Gaye coow li bëri na fan la combat bi tollu champion. waaw combat bi taxaw na. taxaw na kay ndax Gris lekk na avance man kon loolu ku lekk avance kay xam nga ne am nga combat man kan euh, li rek laay waxaat sama parole laa joxe donc xanaa saison bi tamit aussi ak kon ni nga ko waxee nii feebar yi demee noonu mhm. et puis saison bi tijjeegul aussi mhm. donc bu tijjee gars yi Gaston ñu perd na confirmer lépp jox ñu ñu avance légaliser combat bi mhm. nit ñi bëre. mais dafa mel ni xaar boo gis am na am na àpp de dafa mel ni naa sa saf ñu ne am xaar bi am na àpp loolu tam du da nga koy déggal wala. waaw mais loolu am la nit ku ne kay am na xaar boo gis am na àpp wax dëgg yàlla mais bu sañoon bi comme sañoon beegul doo mun a joxe àpp donc loolu la. mais gars yi nee nañ vrai adversaire wu Balla Gaye du du kii du du du Gris Gris Balla ñu ne neexul d'accord dégg nga wax jooju wala déggoo. ci gàttal tënkal la li ngay bëgg wax ak li ngay xalaat. waaw maanaam àdduna lépp loo gis ak lu jot yomb kon lu jotagul daal mu cee wax ak di ci débat Balla Gaye Gris Bordeaux moo taxaw dañ jàpp bu loolu jeexee lu Sénégalais yi bëgg nag ñu def ko. léegi balaa may jeexal mooy Balla fan nga ne ñi nga daan ak ak ñi la daan ñëpp loolu foo ko teg boo ko mel loolu foo ko teg Balla <laughs> man mbër ñëwee ma ci gàttal waaw ah. loolu yàlla da koy def hmm. phénomène loolu yàlla da koy kon mbëri kenn ñemoo ñi nga dégg li ma wax ñëpp ñu ma yàlla boole laax may bëri ñoom ñemooñu mais Eumeu Sène nee na gars yi gars yi dégguñu fi fi nga waxee de dama dama dama tënk wax ji xam nga tooñ baaxul waaye ci gàttal laa wax ñi ma daan ak ñi ma daan dañu ma ragal lion bi ñuy wax est-ce que du dëgg-dëgg ci biir géew du doo doon dama nekk lion pur et dur nii rek nga may gis nag may nekk normal ci biir làmb lion la pire et dure waaw am na na ñoo xam ne bëri naa ñoom ma daan leen ñu wax la waxal ma ko ñu daan ma waxal ma ko ma daan leen ñu waxal ma ko kon loolu lu am la réalité la quoi waaw. jeexal parce que xam naa da nga sonn te dëgg ñu ko nangul ñu këf la mais dañuy jeexal mais CNG mënuñu jeexal te waxuñ si CNG Alioune Sarr dafa dafa war a dafa war a toog loolu ban ban jàngat ak ban position nga am ci CNG waa man waxoon naa ci te wax ji ma ci wax wax ji solo la mooy mbër yi ñuy dagg di jël seen xaalis benn boo jëlee cinq litres ñu daggal la te ñoom ñu ko yor ñun ñooy fay suñu ndox ñoom fayaluñu ñu dagg la boo manqué heure <laughs> ñu dagg la. waaw léegi fecc moom bu demee ba am heure làmb lu muy jëriñ parce que kenn ñëwul dépasser énergie bu bëri te xam nga ne après da ngay bëre loolu teguñu ko fenn furna ànd amatul loolu teguñu ko fenn man ci loolu laay kaas waaye u kuy falu ay eh, ku ñàkk falu sama yónneeku ci. maanaam Alioune Sarr dem mu toog loolu am. sama yónneeku ci loolu kuy dem ak kuy toog sama yónneeku ci loolu. waaye daal man am loo xam li ma gëm mooy fekk ko fi ànd yi dafa a ñëw cinq litres yi ñëw ñu ñu tous tous bu neex parce que amateur bi ñëw ci làmb tous la bëgg dafa bëgg seetaan tous ba pare seetaan ay chorégraphe seetaan tous dëgg doo ko def chorégraphe loolu mooy làmb ak dagg mbëri pour lan di leen jox heure boo arriéré wala boo génnee saako yi ñu dagg sa xaalis boo dóoree mbër foo ko warta dóor ñu ne dañ lay dagg mais kan mooy tey di dóor nit foo xam da nga koy lor ëllëg loolu pour la lool loolu yëpp ñu créé ñoom ci seen biir di jël xaalis bi di ci encaissé ak di wàññi mbër yi loolu lañ ko jël teg ko fële pour làmb neex pour làmb gën a mën a jëm si kanam man daal loolu laay wax mais li des ay kuy toog ak ku toogul man sama yoon nekku ci. ñu ne sport yu bëri di discipline yu bëri ñi ko pratiqué ñoo koy faral di jiite ñuy wax ay ancien mbër war na mën a toog ku mel ni Tyson nag yooyu ñu koy tur wala Yékini wala Manga wala leneen Moustapha Gueye ndax yow d'accord nga ne ancien mbër war na mën a yor CNG. waaw doomu aadama moom loolu la yàlla jox war nga ko mën a yor bu la ko yàlla joxee mais ma dëgg ma la kii moo ko yor kee moo ko yor man moom du ma ci xuus mais li nga xamante ne daal mooy li ñuy dagg ak li ñuy def lamb di dellu ginnaaw dama ciy wax sañ naa cee wax ndax man faluma falaaluma kenn mbër laa dama yem ci mbër bu ma génnee ci cadre mbër nag mën naa wax leneen loo xam ne bokkut waaw. dañ ko war a auditer dégg waruñu ko auditer am na ñu si àddu d'accord nga si wala CNG. <laughs> waaw loolu nag kon Matar Ba moo ko yor. moom mi ko fal. moom moom na leen ci leeral dara. mais kon ñun faluñu ko fi dañoo ñëw ci làmb suñu papa yi fekk leen fi ñun ñu judd ba mën a màgg fekk leen fi loolu lu ma ci wax tooñ mm-hmm. waaye ki nga xamante ne moo ko dénk. ci fu mu ne moom ngi boo leen ko laajee mu wax leen lu leer. na Garga de noo gisee combat yi ah, ko tëgg. aywa <laughs> am na ñaari combat quand même combat na am na ay combat ay jeunes yu yuy monté Tyson 2 ak Franc boobu combat noo ko noo ko gise ko gisee champion. ah combat yi neex la wax dëgg yàlla Tyson 2 Franc moom ñaari champion ngeen boole de ñaari ndaanaan ñaari bërëkat ñaari ñoo xamante ne dañoo topp ma pare toj ko pare doog combat bu neex la macha allah kooku moom amateur yi yàqamti nañ ko supporter yi yàqamti nañ ko. Mama Lamine ak Garga ay ñaari cappaaculu yu ndaw yi ak ñu ñooy champion lañ ñoom it ñu nekk dañoo nekk ci dynamique bu bu am importance si ñoom ñaar Garga dafa nekk ci yoon Mama nekk ci yoon bu baax a baax kon boole ngeen ñaari champion yoo xamante ne ku fa génn war nga mën a dugg ci coup de grand te coup de grand pas. coup de grand coup mais di nga dugg dina la ibbil bunt mag a mag pour nga mën a àggali sa carrière boo amaatee ñaar baax ñett yu baax nga mën a dugg ci gaal. Reug mbër la champion la <laughs> mais man sama xadar benn la ci làmb. benn la ci làmb mm. amul keneen ma ko moom wax yàlla. waaw ah. ah. ah. xanaa ci bëre nii rek mais sama xadar ci ci tous avant làmb affaire signature. donc mm. gisagu ma mbër bu muy buy def lan moo tax Sa Thiès ragal non ça dépasse kooku doom mbër la. <laughs> non pour lan bala ah, non Balla Gaye Modou ci làmb moom jeex na. jeex na déedéet gisaguma ko de. déedéet. Ah, non ñoom ñaar ay xale lañ. làmb seen kanam. làmb a ngi seen kanam. Mm-hmm. waaw loolu moom mooy loolu. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf kontaan.